mu déggal ma ci rajo bi feneen mais may na ma jàll il faut communiquer si tu la sécurité c'est la communication soo communiquer wul rek day am épreuve de force loolu moo tax par ailleurs moi je demande aux forces de l'ordre les policiers et les gendarmes ak yooyu ñu gën communiquer ak la population parce que aja y a des choses qui se passent dans des maisons dans des quartiers la police n'est pas au courant population yi dañ koy gis mais voilà si on voit un étranger douteux on doit le dénoncer on est d'accord alors day tax ma dugal foofu sama question très rapidement balaa ñuy ndar képp il nous reste cinq minutes on parle de force occulte yow da nga gëm ne force occulte am na Sénégal ku xam sécurité boo xoolee gars yi di évoluer dina xam ne am na am na maa ngi ñaan sénégalais yëpp mag ndaw xale ñëpp ñu daje ñu waxtaan pour sauver le Sénégal on en a besoin. sinon. sinon lu ne mën na am sous région bi yëpp ñun ñoo fi tranquille ñoom yéene nañ ko quand même man personnellement mon entreprise EFOS Elite Force One Sécurité je travaille avec des autorités des hommes d'affaires ils viennent pour me voir jënd samay service service bi lan la sa kër yow sa njaboot tout le monde on les met en sécurité cinq questions la ñu posé la ko nga répondre ko ñu wax la ça c'est la conduite à tenir soo koy def chaque jour xam nga sànq bi ñu ñëwee moom laa leen wax dama ne sa oto da nga ko gaaree nii nii nga ko waroon gaaree mm-hmm. parce que maa ngi yow bu ñu génnoon fii en urgence ñuy dem ci ci ci oto bi man maa lay njëkk a départ c'est des notions de sécurité yoo xam ne tey suñu entreprise dañ koy dañ koy jaay et les gens en raffolent ils viennent acheter j'invite tout le monde ñu ñëw def ci formation boobu nit naturel nii dafa war a am ay notions de sécurité alors ci wàll ci manifestation yi ba léegi kon force occulte yooyu parce que des fois dañu naan wuy kii tiire na oui dafa ñëw dend ak ak euh, les forces de défense et de sécurité wala la police ak yooyu lan nga ci mën a wax rek euh, ci ci ci tënk. parce que nit ñi fi mu ne nii. mënuñu ko gëm parce que xamuñu ko. xamuñu ko moo tax xamuñu ko xam nga bu ma gisee HLM groupe bi bi évoluer ay nit yor ay outils sol kagul ñëw di wekki caméra yi yi ci tali bi booy yi daaneel ko taal Auchan yi ni ñu koy dajee banque yi ni ñu koy dajee nga defee ne loolu c'est des gens c'est des menuisiers wala mais Cofina wu je sais pas maa ngi def publicité. non non euh, c'est une banque que je gère gars yi bu ñu ñëwee gis ne dañu bëgg a dugg mënuñu jaar ci buntu mur bi la ñu toj dugg fa loolu sénégalais lambda xam na ko ñu ngi fi ñoo fi am na fi kër yi léegi da ngay jékki ñu ne am naa booy bi xamoo nu mu tudd Moussa la lay wax amoo carte d'identité amoo dara muy raxas kër gi di génn on est infiltré je viens chez moi je trouve un jeune j'ai dit yaay kii kan la mu ne ma non moom daa waroon dem Europe parce que dañ ko am benn waay bu ko xoon kaay ma yóbbu la nga football léegi moom football mu ñëw fii waa ji nax ko ci kër gi lay lekkee loolu yëpp dafa nekk loo xam ne tey. Euh, dañ ci war a bàyyi xel. ah oui man ku ma seet si di nga di nga changer sa dund. nit dafa war a am ay notion de sécurité yoo xam ne noonu lay dundee buy génn këram buy taal otoom buy dem bu nekkee ci yoon bi buy ñibbisi bu demee restaurant bu demee hôtel loolu ku ko sàlloo di ko def di nga yow gérer sa sécurité parce que quelqu'un qui m'appelle pour ma dire vieux kaay sama sécurité danga nga may fay 5 millions. minimum ah oui. alors boo déggee seen liggéey léegi mu am ñeneen ñu ci dugg. très rapidement la dernière question balaa ma lay woon la dernière photo ñu leen di appeler nervi qu'est-ce que cela fait. ça fait mal quelqu'un qui vient chez moi qui fait la formation boo ko tuddee nervi rek mu xam day rey boppam. quelqu'un ku ñu wooyee nervi ci ni ma ko déggee ñu koy waxee mooy koo xam ne dafay def sécurité wala dañ koy utiliser pour mu def sécurité muy muy talaxlax di dem rek buñ ne ko dóoral mu dóor buñ ne ko lakkal mu lakk bu ñu Euh, opposants yi la ñu soxla tey nga def nii il va le faire mais quelqu'un qui sort à EFOS bodyguard académie doo ko doo ko proposer mu def loolu donc nervi moom euh, c'est comme quand quelqu'un m'appelait Calo Bleu j'ai dit non je suis pas Calo mm-hmm. je suis quelqu'un qui a fait la formation qui est réfléchi et qui qui connaît son job voilà donc Adja Sénégal daal ñun ñoo ko bokk buñ ko seetaan ok demoon naa fi liberia benn waaye di ma expliquer ne ma fii boo fi taalee añ wala dara dañ lay pilonné ma ne ko comment vive mu ne ma xaj yi la ñuy bu ñu reyee xaj dañ koy bàyyi au soleil ba mu wow ñu seel ko di ko lekk loolu su wu ma ko sama waa dëkk. Mhm. nañu nañu nañu delloo siwaat suñu xel nanu daje ñun ñëpp ñu waxtaan ñu xam ne ñun ñoom moom Sénégal ñoo koy d'abord sécuriser ah keneen doog a ñëw wàllu suñu te léegi koo gis rek këram a ngi tàng mi ngi lakk. du kenn du nu du wàllu du wàllu si kenn. Mhm. ñu ñu ñu xam ne gendarmerie ak police on a une police une gendarmerie très performante naka la ñuy gérer force occulte yooyu ñi leen di dóori ay xeer ainsi de suite ainsi ñi ngi ci mbedd mi.